voilà c'est l'arrivée du président de la République Macky Sall njiitum réew mi oto président moom ngeen di seen noonu mooy doog a yegg si fii ci stade du Sénégal mi mu duppee l'ancien président Abdoulaye Wade kon ñu xool ak yéen ci direct bi ñu leen offrir yéen ñi ñuy teewlu yegg si président de la République Macky Sall oto limousine baa nekk noonu Mercedes V12 waaw présidence ñooy yegg si noonu Abdoulaye defe naa président oto bii la war a nekk suma juumul moom président de la république Macky Sall. voilà ganam yi tamit fii la ñuy duggee fii mooy porte d'entrée officielle bi. voilà donc il y a président présidents qui sont dans euh, le euh, qui sont qui sont qui sont qui sont accompagnés par le cortège du président Macky Sall waa présidence. nu fàttali ne tey dina dalal ay ganam yu bëri. donc gars yaa ngi doon du coupe du Sénégal ci oto boobu noonu ngeen di seen ca la nekk ndax it tey mbooloo mi nar teew ci stade bi dinañ am euh, dinañ am tawféexu mën a fekkee tey jii ni gis coupe boobee nga xamante ni moom la Sénégal a remporté pour la première fois dans son histoire fële na la ca Cameroun kon mbokki ñu bàyyi leen ngeen xool arrivé président Macky Sall la bi.